sëñ Cheikh ginnaaw ba ma la nuyuwaatee xibaar yi ñu tàmbalee ko ak élection présidentielle bu 24 mars campagne électorale bi ñu ngi ko nar amal euh, fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars. Euh, loolu nag mi ngi am euh, ginnaaw bi conseil constitutionnel aligné woo ci date bi nga xam ne moom la njiitu réew mi tànn njiitu réew mi ci boppam génnee décret 2024 700. 2024 euh, bi nga xamee ni nag dina permettre campagne électorale bi euh, am ci euh, anam yi ko code électoral bi waxee en matière de propagande électorale waa Sénégal tamit ñoom seen côté lépp yemb na ngir rek ñu mën a démarrer campagne électorale bi ci anam yu mucc ayib ñu teewlu ci Ibrahima Kane. li ñuy njëkk a jàpp ci communiqué bu CNRA bi mooy campagne électorale bi fukki fan ci weeru mars bu zéro heure jotee ci lañu ñu koy tijji. fukk ak juróom-ñeenti candidat yi kon fukki fan ak ñett dong lañu am ngir jéem a convaincre électeurs yi ndaxte campagne bi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars bu zéro heure jotee ci lañu koy tëj. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a wuutu président Macky Sall ci bopp nguur gi kon convoqué nañu leen juróom-ñetti fan ak juróom-ñeenti fan ci weeru mars fële ci loko yu RTS ngir amal seen enrigistrement bu njëkk mu soxal campagne électorale bi. ci scrutin bi ñu dëgmal ñaar fukki fan ak ñeenti ci weeru mars lu jëm ci temps d'antenne bi ci rajo ak télévision publique candidat bu ci nekk ñetti simili lañ la may émission yi soxal nag campagne électorale gi aju ci premier tour bi dinañu ko diffuser ci ñaari pàcc ba ca njëkk 18h40 lañ koy teg ba ca topp 20 h lay doon émission bu njëkk nag bi ñu jagleel kon candidat yooyu ci présidentielle bu 24 mars bi dinañu ko diffuser kon fukki fan ci weeru mars wante nag seen déclaration bu njëkk rek ci loolu lay soxal lu aju ci ordre de passage bi ci première émission googu CNRA di xamle ne dafay sukkandiku ci tirage au sort bi nga xamante ne amaloon na ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier loole nag ñu defoon ko ci siège u CNRA te mandataireu candidat yépp ku ci nekk teewoon nga bu fekkee ne nag dañoo nar a dem ci deuxième tour candidat bu ci nekk dinañ la may juróom-ñaari simili ci temps d'antenne bu fekkee ne nag dañoo nar a dem ci deuxième tour candidat bu ci nekk dinañ la may juróom-ñaari simili ci temps d'antenne lu soxal diffusion bi nag benn tranche rek lay doon bés bu nekk ñu nar koo teg bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci guddi gi. coalition Déthié Fall 2024 ñoom euh, li ñu bëgg mooy ñu amal euh, premier ministre de l'intérieur plutôt bu neutre bi nga xam ne dina fexe ñu amal organisation élection bi ci euh, anam yu mu gën a baaxee maanaam de façon libre et transparente Déthié Fall moom ne gouvernement bi ñu tas jàppe ko dara lu dul diversion coalition nag pare na ngir dem campagne électoral ñu teewlu ko ci ba mu doon janoog taskatu xibaar yi ak Ibrahima Kane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 nommer un premier ministre c'est une diversion une tactique politicienne parce qu'il connaissait d'emblée le revers bi nga xam ni jot na ko venant du conseil constitutionnel et il voulait pas aujourd'hui justement que les titres consacrés wu spécialement spécifiquement ci revers yooyu moo tax mu dugal dissolution gouvernement bi dugal un premier ministre ñu koy wax Et ça a toujours été une revendication de toutes les oppositions qui se sont succédées. On veut un ministre de l'Intérieur neutre, indépendant et consensuel pour l'organisation de cette présidentielle. di wax sénégalais yëpp que la coalition Déthié Fall 2024 dès ce dimanche au plus tard, sera sur le terrain politique, sera en campagne partout au Sénégal. leneen ci xibaar soxna naat aajo euh, coowal suuf bi nga xamee ni yenn restaurateur yu nekk ci euh, corniche almadi yi ñoom ñoo ko seq ak benn ancien ministre des finances di wuyoo Abdoulaye Diop tollu na ci 2000 mètres carrés nag nga xamee ni fa la ñu euh, installé wu ñoom nag nee nañu loolu mënuñu ko nangu te euh, duñu bàyyi euh, ñuy jël seeni suuf ci leeral rek dañ ciy teewlu Fat bintu Konté ak Mohamed Dieng ñi nga xamee ni ñoo tewee woon seeni janoo ak taskatu xibaar yi. beneen litige foncier amati nga xam ne moom moo di Ngor cette fois ci nag ancien ministre des finances Abdoulaye Diop moo nekk ci coow lii ndax mi ngi réclamé lu toll ci deux mille mètres carrés restaurateur yi nga xam ne jamono ji ñoom ñoo nekk ci lu ñuy wax la corniche des Almadies. tey mu amaat ay nit ñoo xamante ne dañuy jóge fële selon seen position bi ñu nekk muy ay nitu état ñëw di réclamer fii ay terre ne ñoom ñoo ko moom maanaam ay kër à usage d'habitation lañ ko bëgg def. fii nii tey jii ñu taxaw nii boo gisee tey jii li waral lii Abdoulaye Diop si boppam. moom mi nga xam ne moo nekkoon ministre des finance doomam moo fi ñëw tey jii di réclamer. fii am na ay jamono 9h wala 19h bu jotee kenn du romb fi ñun ñoo ko ñëw assainir defar ko tey jii am na lépp. te nag jamono ji ñoom restaurateurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci corniche bi si situation dafa xaw a doy waar ndax jotuñu koon régulariser autorités yi lañ topp seen gannaaw boobu ba tey mais faale wu ñu leen. wolof dafay wax ne ku gën a jege gën a yey gën a boobu nag. dafa am ay doomi Ngor yu nekk fii am fi ay restaurant te li nga xam ne par exemple on est dans une république dañuy demander citoyen bu nekk pour boo mënee taxawal dara pour nga mën a ñëw ñu accompagner la ñëw nañ si coutume bi maanaam frais yi benn bul ñaar ça fait des années pour demande papier yooyu mais comme on ne pas habilité de le donner am na fu ñu leen mën a yónni renvoyé leen fa mooy vers l'État pour ñu régulariser leen si ñi xam ne ñoo leen a régulariser mais gis nañ chaque fois bu ñu demee foofu pour demander ñu régulariser leen dañ leen di rejeté duñu leen régulariser. li ci am ba am ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo fecca ngox nee nañu duñu bàyyi fii jàll bi yoon na ndax même bu fekkee ne non violence la ñuy opté jamono ji ñu toll faaw nag ñu bàyyi leen ak li nga xam ne moo di seeni suuf. am na loo xamante ne dañ ko war a waxtaane suñu mun a gën a gaawee trouver si solution parce que problème baa ngi bëgg récurrent parce que à chaque fois problème yi day ñëw di ñëw di ñëw di ñëw donc nag ñu ngi interpeller l' état te bëgguñu loo xamante ne ceinture bi ñu wër muy ceinture de feu ak situation bi Sénégal di toll fi mu nekk nii bëgguñu loo xamante ne dëkk buy tàkk mu commencé ngor. xalaatuñ ko te nag jàmm la ñuy woote jàmm moo tax sax ñu def fii suñu alal jàmm moo tax ñu jël fii ay doomi réew mi ñuy liggéey mais nag faut pas que ñu di ñu pousser au bout. lii nga xam ne moom la ñuy wax la corniche des Almadies nga xam ni restaurant yu bëri ñoom ñoo fi nekk terrain yi nga xam ne fa la ñu samp nag ay autorité ñoom ñoo ko moom pàccoo nañ ko yàgg na ci ancien régime ba la na pour la situation boo xam ne jamono ji dina fas yéene indi li nga xam ne moom moo di ay jafe-jafe fii ci village bi nga xam ne moom la ñuy wax le village de Ngor jërëjëf soxna Natal yi moo fi gënoon a fës ci xibaar. jërëjëf euh, sëñ Cheikh ci yaatalu xibaar yi bu leen fàtte ci kanam dinañ dalal Seynabou Mbaye moom moo jiite conseil sénégalais des femmes euh, ci jàngat bi et puis am na reportage bu ñu leen jagleel euh, ci benn soxna boo xam ne dafa am nanisme muy ku cëram motul dinañ ci ànd ak yaay Kumba Ndiaye sunu gan tey jile ba tey ci soxna yi docteur Fatou Ndiaye dem nekk directrice générale bu PNA léegi ñu yaraat yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak Chérif Dia.